détourner conscience au peuple bi ci li nga xamni moy l'essentiel te jamono jii loolu mo nek di xew Sénégal te ñun askan wi aussi ñu am ci part de responsabilité ndax comme ni ko Mollah gën waxé won ci benn cay vidéo am bu ñu demee ba kaw bu Bougazelli ñu tigé na la débat trentaine de milliards de faux billets yi di waxtaanee ndax war nañu partager vidéo am waaw wala déet ba am ñu koy ñaanu nan yé yaay wàllu sutura nga xamni ni mi ki ko naru yori ëllëg moo naram problème bu rëy rëy ndax dina yëkkatiwaat dossiers yi nga xamante ni yoon daf ci dëgg tànkam tey am ñu toog fële naan garaawul nañ leen bàyyi ak yàlla parce que ni ñu ko wax te dee dañoo am peuple boo xamante ni dañu amnésique gaaw fàtte peuple bu sentimental sentimental ba jëmale ci ñi nga xamante ni ñoom bu ñu jekkoo say milliards di ko lóobal duñ la yërëm mais teewul dañuy wëy di wasu làq ndax bu amee ñu sañ a jël askan wi jàppee leen ay boutons manipulables di orienter seen xel ak seen xalaat fu mu leen neexee ñun ñu sañ a wax ni lii mooy àll bi nañu wax ci mbir yi keroog dafa am ko def commentaire bu am solo ne moom li ko métti mooy sénégalais yu baree bari xamul ñen ñooy exactement député benn Bokk Yaakaar yi ñuy tudd ci wàllum trafic de visa ak passeport diplomatique li war loolu mooy c'est parce que nguur gi réussir na li mu bëggoon mooy gannaaw ba kaw kilifa jibee woowuñ ko benn yoon ngir mu leeral dañoo bàyyi ba ñoom ñu feeñ le seen i mbir feeñ ñu door a woo ñoom kilifa su ko defee seen cas dafay suudu siiw député yi li ci ay stratégie de manipulation la bokk pour détourner xalaatu askan par rapport ak ay faits yoo xamante nii ñoo gën a nekk priorité. def nañ ko ak yi mu réussir ñu ngi koy def ak Bougazelli pour léegi ulli ko moom mu nekk def ko du ñaawteef bi yoon war a daan ñu ne ko ràpp ci kaso bi moom mooy nekk victime bi maanaam day mel ni moom la ñu tooñ yoon war koo fayul ci mbir yooyu la ñuy ñëw maanaam ni ñuy fooyee askan wi ak ni mu yombee. dañ koy dooree ak kaaw député beno Bokk Yaakaar yi nga xamni ni dañoo impliqué wu directement ci biiru trafic de visa ak passeport diplomatique kenn ki ñukoy woy El Hadj Mamadou Sall keneen ki di Boubacar Biaye niñ ñu doon doxalee ak lépp leeraloon nañ ko ci benn vidéo da ngay war a tukki doon jigéen ñu wutal papier de mariage comme si ko ñoom say jëkkër lañ nga am ci passeport diplomatique wala visa di mën a tukki fépp diggante biñ ñu defoon vidéo boobu noonu ci ñoom ak léegi enquêteurs yi dem nañ ba découvrir pour l' instant quatorze faux mariage fukki sëy ak ñeent yoo xamante nii dañ koo légaliser gum ci wàllum yoon jamono jii permettre ay jigéen ñu tukki ci boolewuñ ci ñeneen ñoo xamante nii feeñaguñu noonu ñu doon légaliser ay faux mariage noonu itam lañ doon légaliser ay faux doom maanaam bu dal extrait de naissance wala nationalité ab doomi aadama ne diw moo ko jur ngir yombal ko moo am visa ñoom El Hadji Mamadou Sall ak Boubacar Biaye dañ doon yëngu ci mbir yooyu ndekete neewul woon aussi ñoom ndongo am na yeneen juróom benn député Benno Bokk Yaakaar kenn ci sax ci vice président yi la bokk yuy yëngu ci xeetu njuuj njaaj yooyu noonu te bu doonee ay tuuma la sax ñu ne waaw loo xam ni amul benn preuve ñu mën a comprendre mais gis nañ ay passeport diplomatique u député yi ci dossier yu ñu doon wutal ay papier ngir ñu mën a tukki seeni conversation téléphonique liñ doon waxtaanee mi ngi ci loxoy enquêteurs yi dañ leen jàpp loxo ci poche amul laam-laamee ñu leen di toppee association de malfaiteurs mbootaayu def ko du ñaaw def escroquerie kuy njuuj njaaj blanchiment de capitaux kuy setal xaalis bu lewul

assemblée nationale dafa lànk ne duñu lever sen immunité parlementaire ki ray bi tax yoon mën a sen mbir ndax ñi ay délinquants ambulants lañ yoo xamante nii danger lañ bu reuy reuy ñu bàyyi leen ñuy doxi sen soxla ci biir réew mi. té moonte lu yagul fàtte xaju fi Khalifa Sall bañ koy walum ci tournement ci mairie bu Dakar yoon nek ci enquête xoluñ ba xam depuis de am le 7 mars 2017 lañ profité daliko di novembre 2017 yone daf ko bëgg assemblée nationale lancé procédure yi quatre jours lañ ci samedi 25 novembre 2017 assemblée nationale teggi malanou kiiraayam djébal ko yoon té bobu fekk nañu teg loxo ba nopi manam Khalifa Sall dañ ko japp ba nopi en tant que député door nak lever immunité parlementaire am malaanu kiiraay bi nga xamni ne protéger. koy protégé Barthélémy Diaz bi yoon waxee ni daf déglu ci dossier le 20 octobre 2016 assemblée yéexantuwul le 11 novembre quelques jours après le ñu levé unité parlementaire am jébal ko yoon. dossier Ousmane le 3 février lañ ko porté plainte le 12 février automatiquement assemblée jël dossier bi ne daf le 26 février quelques jours après ñu daal di levé immunité parlementaire am mais bu vous délinquants, délinquant yi nga xamanteni ay député Benno Bokk yakar lañ seen dossier leer nañ ñu la main dans le sac le 7 septembre la enquête révélé son implication sur ci trafic de visa ak passeport diplomatique En ay preuves légui ñu ci mois d'octobre, majorité de l'Assemblée nationale lank nañ ñi di ñu jublu dossier ngir léegi nak lañu nek nak di soulé ñoom sen dossier député yoy nonu moy di utiliser vidéo yi ñu jëlee ci Thier moy la stratégie du contre-feu bi ñu leen doon wax sank manam sa yu ciowul député yi jëlé ampleur rek ba askan wi tambli di ci intéressé wu ñu génné ci vidéo yi nga xamante ñu ko jëlé ci Thier xam nga au début vidéo kilifa dong lañ génné garder yeneen vidéo yi parce que yu bari la ciowul député yi dudu ñu convoqué kilifa mu dal di suul sen ciow ñu dem ba ci biir ne nekkul ñaari député yu dong des na juróom benn yoo xamante nii kenn ki vice président assemblée la bokk ñu génneewaat beneen vidéo muy Simon ñu fàttewaat mbir moomu noonu stratégie bii la ñu nekk di utiliser ba ñu far fàtte député yi nga xamante nii institution bu Sénégal la ñuy fooyee di utiliser ndombal tànk yi leen askan wi jox di ci def trafic de visa ak créer passeport diplomatique alors que seen cas moo gën a garaaw ndax ñii lépp la leen askanu Sénégal jox ci ay privilèges salaire bu baax oto carburant

parce que xam naa ni dëgg mooy mujj tey ña ma ko defoon ñëpp kenn ku ci ne yaa ngi ci problème te bi ñuy ànd bi may defee dama toog mooy ko capitaine moo ma may course na laa ko jëlee maa ngi toog si ginnaawam dana xa maa ngi toog si kanam ñoom ñaar ñu ànd. may ma course na ma lii ko jëlee beneen ko xaritu gendarme na ma honorable yow taxoo ñu woon a jóg. wallahi azim taxoo ñu woon a jóg bi ñu demee ba ci biir la am lu ñu soufflé. d'accord waaye mais nag. tey ña ma defoon ñëpp kenn ku ci nekk yaa ngi ci jafe-jafe. kon ngeen gis ni mboolem plateau yi bu gazel yi def gannaaw bañ ko bayé yamul ci inventer lo xamanteni dara néew ci deug mais dafa nek ci di tuumaal wa gendarmerie rawti na capitaine Touré ne mom capitaine Touré da fay déggoo ak Ousmane Sonko ño nek ci ginaaw lolé lepp bo Ousmane Sonko taxaw bir assemblée na fi lañu raxé raxasee am ah, Ousmane Sonko. waaw est ce que du inde ba ko jàppal moo tax. déedéet du lolou parce que bobu man amna information ni diw mi ngi jakko Ousmane Sonko te ci ñom ci ñom gendarmerie ñom ko wax. billaahi wallaahi taalaahi Abdou moom maa ko njëkk wax ni diw xaritu Ousmane Sonko la mu ne ma yaakaar nga ko ma ne ko laaj ko Abdou ma Abdou moom dégg bi Bougazelli tegee lii ci ndodd waa gendarmerie déggoo kenn ku wax kon vidéo bi génn preuve la ngir wan sénégalais yi waa ji ban genre doomi aadama la benn du wax dëgg ñaar ku mën a inventé histoire la dafay toog di fent ñett ku ñàkk jom la ndax ñàkk jom mënul weesu nga def lu ne weng mais amoo kersa jàkkaarloog yi te mu wóor na leen yow xam nga ci sa wàllu bopp que ni waxu dëgg journaliste bi ngay waxal xam nga ni gëmu waxu dëgg ña lay déglu muy askan wi wóor na la péng ni miis nañ say kàcc mais teewul yow yaa ngi wër di sos ak a nar jëmagum jëmm kon ñàkk jom fii la mën a yem mais li garaaw ci kaw Bougazelli mooy jamono gi ñuy wax ak yéen dañoo nekk di créer dossier ci biir dossier maanaam jéem a fàttalu coow Bougazelli ak faux billets yi pour def ko moom benn victime mel ni dañ koo tooñ gannaaw vidéo bii la ñu ubbi benn enquête pour ne leen dañuy xool kan moo ko tasaare colonel Cheikh saar bi nga xamante nii jaratul ñu leen koy présenté mi ngi benn dossier ci wàllum yoon jëm ci mbiru torture maanaam dóor doomi aadama ba tey yoon attewu ko kooku la ñu jël daal di koy dénk dossier Bougazelli ngir mu convoqué ay gendarme laaj leen kan moo partage vidéo Bougazelli bii vidéo boo xam ni élément de preuve la woon pour wan waa tribunal que ni waa la ndax bu dul woon vidéo bii Bougazelli dañ koy seetal ba mu set wecc ci wàllum yoon parce que dafay wedd ba tëdd ci suuf ñu ne dañuy enquête ci yu ñàkk solo pour def Bougazelli benn victime ñenn ñi di jaay waane naa nañ ko suturaal alors que ci yeneen dossiers yoo xamante ni yàq ay nit moo ko taxul jóg décrédibiliser leen dëggoo kenn ku ne wàllum sutura wala ay mbiru données personnel pourtant lu yàggul ba ñu jàppee woon benn jeune buy triché baccalauréat di defal keneen ab policier moo photo dal di koy partager Sénégal yépp gis ko ñépp di ko saaga di ko yàq lu mel ni xeme déggoo kenn ku ni nañ ko sutural wala ñu ibbi benn enquête ngir xam ban policier moo ko tasaare ñëpp dañoo àndandoo dal ci kaw jeune boobu noonu nga xamante nii la mu def gaa dañ koy ñaawlu mais gënul garaaw li bu Gazeli def parce que lu 30 milliards faux billets bu ñu réussiron ba tasaare ko ci marché bi économie Sénégal mënoon na fa jaaree daanu ba faaw. Cheikh Issa Sall magistrat la discussion ak Ousmane Sonko lo xamni ne féké wu ko ñoom ñaar dong la le partager pour ay mbir ñak solo ya ñaan audience Mansour fay ak ñaanoo ko pourtant données personnelles la déggoo kenn ku ci wax déggoo benn enquête Kilifeu Simon dañ leen filmer ci lu ñu xamul partager vidéo yépp ba tey déggu ñu naan wàllu sutura wala yoon ubbi enquête contre yi nga xamante nii ñoo ko te tasaare débat bi moo woon ñoo defam defuñ léegi li ñu mënul comprendre mooy lan moo tax ci biiru Bougazelli bi nga xamante ni vidéo am élément de preuve la woon ci wàllum enquête mu daal di tasaaroo loolu bëgg a nekk débat par rapport ak li gën am solo mooy li ñu koy tuumaal. koo xam ni dafa toog ci plateau télévision tuumal waa gendarmerie ne jàppuñ ko kay faux billets ñu ne ko da nga doon jéem a ger gendarme yi mu ne déedéet ñoom ñoo wax ma fay leen cinquante ngir ñu mën koo gérer kenn ñaawlul mbir yooyu kenn ubbiwu ci enquête ndax dafa naroon tuumal ay éléments yoo xam ne ci seen liggéey lañ newoon ñu daal di nag génne vidéo yi prouvé contraire tuuma yooyu yëpp nga dégg am ñu naan dañ ko suturaal ak ay waxi données personnelles ba du mujj ubbi enquête pour nee nañ dañuy teg ay daan ñi nga xam ne ñoo partagé vidéo b ay waay Madame fait quelques jours débat bi dugg phobie au bio mais kan partage partage vidéo ñenn ci askan wi tamit nangu ñu leen di orienté ci ay faits divers mais puisque nangu nañ ko ñun baax na ñoom katu ñaawte yi daañu wéy di doxi seeni i soxla innocent yi ak néew di doole yi ñoom di dee ci prison bi parce que seen loxo jotul seen ginnaaw kon taxa solo bi tey loolu la woon ñu ngi leen di gërëm di leen jaajëfal di leen di daje inshallah allah beneen yoon ci beneen jàngat jaa ngi jëf koom-koom du ñu leen baal suñu Sénégal lañu tuutal réew mu am jom